Orange moo la woon ginnaaw Thiaw Star lañ jàkkaar lool at bi sifle na Yonde Debout saan journée Assane Ndiaye ginnaaw Thiaw Star lañ jàkkaar lool jàppante na ñoom ñaar jàppante na ñoom wañ Thiaw Star Debout Diaz ay waay wër na ko ndomba Thiaw Star wër na Defu Jaas bañ na Thiam Essa war na ko def ay waay doole doole doole Thiam Essa daan na Thiam Essa daan na Defu Jaas Thiam Essa daan na Defu Jaas oh Thiam lamba ngi noonu lamba ngi noonu lamba ngi noonu ki daal daan war laa daan da jiitu si lamb mag si bëre kon bu la daanee war na saan Cawe Sarr noonu Mor Kanka nga indi Cawe Sarr noonu indi Cawe Sarr noonu Mor Kanka. mais Thiaw nuyu naa la. bëgg naa lu bu baax. li ko bëggee nga wallaahi laa si mënuma wax gis nga la mais daf maa yéene. dafa dem ba manqué xaalis mu ne ma baal ma jël avance jox xaalis bi nga sa combat. demoon barke alxuraanu karim ñu dem ba dëkk jaay li mu am lépp jël xaalis bi jox ma kii mënu ma koo fay sama la mais barki Seydina Muhammad moom yàlla doon roi de Sarène moom bu daree daanu man yàlla nay daanu muy daan barki Ahmadou Bamba non loolu la non cest mooy doxe noonu mais chaque ñaar ñi bàyyi baal la bàyyi ba dañ ma ne ma liggéeyal lamb du dara man fi ma fi ma war ne si làmb xam naa ne nekkuma fa mais amul problème yàlla baax na mais ñii seetaanuñ ma su ma doon découragé ba léegi bàyyi naa su ma jëm booy pire daa daan sama fils dama koy xaar ba mu pare mu duma ko alxuraan keneen force dama koy duma dama koy xaar ba mu pare mu duma ko lu leer laa